Ndiol bu Sané la moom ngeen am ñu ngi lay jaajëfal di la kontaane naan la beneen yoon ay dàq. waaw merci di leen di sant di leen gërëm seen tele bi dem ba doon télé yu mag. ngeen ñuy may xaalis ñu leen di may xaalis aussi. waaw ngeen ñuy jàppale waale nag. daal xasaale nag de ndax damaa ñëw Joal nga jàpp ñaari gaalu sompaat te mayoo ma ndawal naroo ma. man bu ma jë bu ma dematee géej. tabaski bi dinaa dem géej te naa jàpp jën naa la woo nga ñëw jël sa ndawal yéen ñi ànd ak ñi ñëpp incha mayaale buur nag saa saaku ndawal may nga ko ku bëgg jën fii ndawal bi si benn jour la ma ñëwee dama koy may saaku ndawal kii sama gaañ la dama koo génneel ay woy na ndax moom nag dafa mën a woy nañ koy gis ni yow déggoo ma buur ñëw na àndaale doole waa Cees yow de sant nañ la yow gërëm la yow <laughs> laal yow doo doo leen ñu ngi toog ak 76 kilos bi ah muy Wos Jordan mu ñëw moom tamit hmm. euh, boo xoolee euh, gars yi si victoire yi si moom la doon démarré daa mel ni de ziare dañ la. waaw delloo ziar laal yoon ñu lay bëgg lu bëree bëri. ba ngi am jàmm. waaw ñu ngi si jàmm baax baax. préparation pendant après résumé. waaw ñu ngi si de préparation moom def nañ ko fii la yàlla dogaloon fi la ñu war a yem quoi yem nañ fi tamit di ñaan yàlla mu jig ñu rek nit moom looy ut lu ne rek da ñaan yàlla mu jig la quoi comme que troisième palace lañ yem daal ñu ngi ñaan yàlla mu jig ñu quoi déwénee tamit ñu jël drapeau bi quoi. Uh-huh. bii mooy ba ñaata at ngay ñëw di participer drapeau chef de waa waaw man bii mooy deuxième fois ma ñëw nag mosoon naa ñëw bi mu amee woon Kaolack. mais eh, boobu moom boobu laa gën a nekk booy boobu fixé gu ma si làmb ji sax damaa jóge woon Cap Skirring dem géej waa Ziguinchor indi ma foofu waa ma ñëw bëri si mais ren moom si laay door a ñëw normal nag waa ren. yëg nga ci sa bopp daal en 100 pour cent. yëg naa sama bopp bu baax a baax a baax waaw. nga ñëw ñëw li nga xam ni moo di euh, bëree ba demi-finale si li nga xam mooy individuel yi damaa jàpp ni euh, accès de confiance moo la daan te ñu bari loolu la ñu wax comme que yaa mujj si kaw nguur ñaax te boo leen di moom da ngeen bëriwaale ak tur bi est-ce loolu moo waaw loolu moom ndax li ma ñàkk par équipe ma ñëw yàkkamti nag yàkkamti individuel bi loolu moo ma daaneel par équipe bi sax boo gisee tamit loolu moo ma moo ma daan dama daan trois combats ñëw yàkkamti. loolu moom ma daaneel. gisoo lu yi final. boobu final rek laa doon gis. boobu moom final rek laa doon gis loolu moo ma ñàkkloo sama combat man ak Nick Maam ma xëy suba ñëwaat ñu daje individuel ma daan ko waaw. mais ngóor mu daan la démb tey ngeen daje tamit eh, li nga xam ne ba démb mu daan la si indi par équipe ngeen daje tamit individuel mu génnee waat la loolu lan lan lan da waaw loolu damay tax rek bu ma demee Mbour ma yokkaat rek gën a entraînement waat waa te xam ne daje yi des na yeneen daje. bi ma daanee woon Dakar loolu laa ko wax ma ne kat des na yeneen daje yu war a daje. nee tamit da kaa saagale lu nga ko saago. non ma ko. non loolu day sos noonu rek dem si gaa yi di jéem a kalaame. te man du ma def loolu. waaw. di ko wax rek beneen yoon dinañ daje waat waaw. looy wax gaa yi ak euh, grand bi Jordan. waa grand bi moom dama koy sant rek di ko bëggee quoi moom moom day sonn si man tout le temps heure bu ma amee combat bu ma waree bëri da si sonn chaque fajar damay woo téléphone. ne ma jugal dem entraînement ji su ma demul géej mu ne ma kaay dem entraînement dama làmb entraînement moo ko yor waaw moom damay jàppale si làmb lu bëree bari oui. te jii Weuz daloon wàññi poids wala wàññiwul poids. non wàññi naa nag mais li ma wàññi bëriwul. 2 kilos rek laa doon wàññi yi feebuloon ma yërëm leen jour pesage. man moom bokkuma si gars yi moom waaw. waa équipe bi moom di kontaan si gars yi rek di bëggee sama grand Toubacouta ñoom usine technique ñoom njool bu sana ma leen di bëggee ñoom ñëpp ñoom Antoine di leen bëggee lu bëree bëri daal waaw. jotaay bi lekk geeg naan gi kaf bi réeju rube yi ndax yenn vidéo yi sax léeg-léeg yaa ma ko doon envoyé nii ngeen fi nekk waaw noonu la demee nag fii moom dafa neex moom fii moom baay noonu nañ fee def yeneen trois jours sax bokk. ak gars yi moom bu ñu ñibbee ñëpp ku ne di nga namm sa morom billaay nekkin bu neex lañu fi nekk comme ni ñu nekkee suñu kër yi daal. laay. waaw nice. kii amul kii moo euh, nekk grand. billaahi ñëpp kay ñëpp fi mu toll nii doo xam sax kan moo mag ak yooyu. ñëpp a daanaka daal. oui. naan compétition yaa ngi sunu kanam. delluwaat nga joor wala delluwaat fan. moo duggaat gaal yi rek. waa ci dugg si ndox mi waaw ñun loolu lañ xam compétir. waaw waaw. yaa ne ma woon musuma dem Marfafa ko su premier sorti Marfafa ko nga jël ko. waa dem Marfafa ko waa jël ko di sant yàlla di ñaan bu fa demaatee ñu jëlaat ko daal. loolu lañ bëgg daal waaw. kon bonne chance rek lamb yaa ngi sunu kanam sama gars yi su mel ni Rhone boo may àndal nii day sonn si man ndax jàngam la bàyyi nii ñëw ànd ak man depuis moo fi ñëwee ba léegi daal di ko sant bu baax di ko gërëm di bëgg tamit sama gars yi nekk Mbour ñoom alka ñoom ngañ maa ngi leen di ñaanal quoi ñëpp ku su li nga bëgg yàlla defal la quoi di bëgg tamit Lamp Fall quoi di ko ñaanal lu bëree bëri ndax moom mënoon naa dem toog seen dëkk entraînement mais daa ñëw ànd ak gars yi di ko ñaanal bu bëree bëri bu demee saison mu neex waaw li mu bëgg saison bi yëpp mu am ko oui. jërëjëf ah, ok jërëjëf waaw <laughs> jërë ngeen jëf ah ñoo leen toppaloon li nga xam mooy équipe Thiès bi dañ fee guddee ñëw na course yi dañoo nelaw te du ma fi nekk di yee benn course 100 euh, kilo bi nag moom déggul olof nee na naa ko ko jéggal mooy loolu Antoine tamit ab yambar jéem ko sax a contacter mooy loolu waaw ah, léegi na ñoo leen ñëwaloon ni toppaleen équipe bi li nga xam mooy cees bi ndax ñu tamit waa région de Thiès ñoo ñu ah, jël indi ñu te ay doomu région de Thiès la yeneen équipe yi nag tamit bu ñu meree ñun ñoo bokk ne si àll bi que le meilleur yaa ma gën a xam mais nag tey nag ku nekk li ma wax Pablo général Kaolack nga àndaloon Lamine Lamine TV Fatick ma ne ko ku nekk sa réseau noonu la demee waa Dakar nag yéen fi ëpp ay ay ay ay ay <laughs> comme ni ko gars yi di waxee ni arbitre yi xaaj bi yëpp Dakar lañ bokk mais sama caméraman caat ma ne ko caatoo coot caatoo caat ku yónni yool baa nga baw yaayam ak papa Diop doomu baay Ousmane Diop borom fàndan di leen kontaane sama doomu ndey sama góor Kara Dieng reporter bu mag bi waaye coono gee ko jàpp moom tamit moo tax mu bañ a toog fii ah waaw buuru Saalum lañ seet si woon ak gars yi mu àndaloon buuru Saalum tamit nee na day dem Thiès takki ki nga xam mooy caat xaw ma nag Kara dina ko ko nangoo mayam déet caatu meer ngiraan laa seet si woon waaw Thiadou Mer ngiraan l'enfant chéri de zone Dior doomu Kër Moussa aan bi ah fils de fils rakk si kan Cheikh Ndongo aan fils de Cheikh Ndongo aan noonu la demee waaw kay sant nañ ñëpp gërëm ñëpp jaajëf Bekaay nee na buuru Saalum jàmbaar la ministre Amadou Ba Toubacouta ngi nii daa gaañu si tànk ba pare continuer di bëre ba jël li nga xam ni mooy 120 kilos yi waaye nee na daa diggoon waa Thiès équipe ak li nga xam mooy individuel mais loolu la yàlla dogal nag dige nag bor la bee déwé nag fi ku nekk ak fa nga mën a yem rek moom ngay mën a yem caatu meer ngiraan bi la woon de